kooru gay moolum géej o xaaj ibrahim gay démb yéene woon na naam waaye seytaane da ko moyut fu mu nooyee tax mu këtt kooram o DG ni mu mel neexu ko ànd ak loolu deli la def malien ba ko doon sëwe la mujje sóob te xeexu malien sorewut ak xeexu njaago ne du jeex tax naka mu ximmali ko rek jubale police dal di ab plaintam o xaaj ibrahim gay tey jii nag gannaaw bu mu mu tuubee la mu def démb yaakaar na ne lépp tàbbi na géej na mu nekkee ci diggu liggéeykaayam rek ñaari agent yu jógee police centrale taxaw ci ay xefam te seen manat ne moom la ñu jël si o DG xol baa woyof biranko ñi di génn teyu ko ne xamul manot o DG <laughs> papa police dimbali ma erreur la leen ba o DG la muy def lépp police yi comme dañu am formation théâtre lañu ko jàpp jàppe tax ca lañ ko gësam tuutal ko ci kanamu ay liggéeykatam yeew ba mën a ñoddu jiital ODG ay simili mu teere ca giri ba jàkkaarloo ko monsieur le commissaire tonton commissaire ma docteur Alfayda alaaji lañu ma duppee te ziyaare ji na baytilaal xaraam ñoom te du wees ànd ak loolu ñoo ngi ci weeru koor <laughs> weeru bala dàq commissaire bal na laq loolu yi lay sakku ci yow <laughs> oh commissaire man tooñ loo ma ba may baalu waa jëlee nga tooñ moom ngay baalu ak gay moolum géej commissaire waxtaan nag malien ba mu faf ko baal waaye rek euh, faw mu yar ko tax mu dakkal waxtaan wa taxawaloo ko ca bureau ba dalee ko 9h ba vers 17h oh DG moo ngi ñàkk tooy xeb kanam nga jàq tey nag euh, fitam wërëcc na ko ODG commissaire daa julli tàkkusaan rek euh, wax ak moom sant ko nag euh, mu dellu këram te li mu def nii bu mu ci delluwaat Haaj Ibrahim jërëjëf tonto ODG <laughs> séq ay tànkam ngir génn bureau ba commissaire am lu mu nemmeeku Alaaji Ibrahim kaay DG di kat di pat pati ana butéelu Evian bi nekkoon sama kaw taabal DG sàllaaw <laughs> tonton gis bu ko dee <laughs> maa xale jëluñ ko dama ne y a des caméras de surveillance ici dis-moi bi ma delloo la fi nga jóge o oh, xaaj ibrahim gay ca lay cokki-cokki ngir génnee ko ci ruq bu mu ko dugaloon andi rek jébbal commissaire xottu bu tey mais danga may fonto wala lan ana ndox ba ci nekkoon DG <laughs> dafa tuur déggoo li ma la wax xanaa waxal dëgg wala ma delluwaat la fa DG billahi barke téere maam yàlla ndox mi dafa tuuru commissaire baal ma maa ko fu mu tuuru <laughs> sama biir bi <laughs>